ca wax ji Aminata Touré ko wax ubbi ba muy wax ba yegg ci waxi mandat bu Macky bi ñuy wax ca la waxee ne Macky amu ci droit ndax li constitution bi wax ci mandat ci présidentiel yi ci bopp réewum Sénégal dafa leer boole kookit moom day mbili gi di Macky ci boppam wax na lu dul benn du ñaare ne lu def lu weesu ñaari mandat ci réew mi def na benn mi ci beneen bu féeg yëgalee na xam ne kon pare na ci mandat ci bopp réew mi Aminata Touré nee na askan wi jóg ñoo war a taxaw ngir ñu respecté constitution bi ci réew mi ne gis nañu ci réew yu bari li nga xam ne moom la fa ngàppaaral ci mandat jur ci xët mu njëkk Le Quotidien mu di fa wax ne coowal troisième mandat mi ngi ci suñu ginnaaw La Tribune bind ne Mimi limité na mandat yu Macky Sall yi ci ñaar ba fàttali li mu waxoon keroog fanweeri fan ak benn ci weeru décembre

diggam kuréel gii di congrès renaissance démocratique yéene kaay bi nañu ñoo ngi nas ci réew mi ak langue goo xamante ne ji lañ ca jublu moo di dajale ci kàngam yi gën a mag ci opposition bi ngir mën a jàmmaarloo ak Macky Sall Vox Populi dëggal xibaar bi ci xët bu njëkk ba dolli ñu ne Khalifa Sall mi ngi xàll aw yoonam dajale ay nitam ngir ñu ànd taxawal ab front bu mag boo xam ne day ñàkkante ak Macky Sall la tribune mel na ku naan ñu guddi ñu toll yi di nappkat yi di a jug régime Macky Sall activiste bii di Guy Marius Sagna moo nekk ci xët mu njëkkul las la ko fa yóbbu moo di seeni mbir ñoom activiste yi ñoom la journal bi di waxtaane ba xamal ñu ne activiste yu bari ci déndub Afrique bi gis nañu ne ci ay ñool ñool la dëkk ne bu ñu leen xoqatalul dañu leen di tëj kaso baa ñu bari ci ñoom ci gàddaay la mujje mujj nañoo dàq magistrat bii di Habib Samba Lawbe Aw yëral xët mu njëkkul Le Quotidien magistrat Habib Samba Lawbe Aw moo newoon avocat général près de la cour d'appel bu Ndar coowal journal bi nañu ci noone ci la conseil supérieur de la magistrature daje àtte ko dàq ko mu jaare fa dem retraite kañ la ay kurpañ di retraité ci géopolitique bi ku xëy jàng xibaar bi ci xët mu njëkk suur soit foo jaar lu ñu foo jaar kon laaj lu ni mel yéenekaay bi nañu ca gaabu ga ca Bakel lu aju ci tuuti ko noon musiba mbaa bu kumba am fa démb ndax maire ba di Bokar Hamadi Si ak Hamidou Ba mi nga xamante ne ji moo jiite école gaabu 2 ñoo fa doon jàppante ba ku nekk ci ñoom génneel sa morom jaasi maire dëkk ba yéenekaay bi nañu APR la bokk directeur école ba bokk parti Pastef coowal suuf moo leen féewale ak lu ñu fa bëgg tabax directeur école ba ne du ca dal Issa Diallo di jàngalekat bu fekkewun yëf yi di témoigner ci journal bi ne maire bi moo saaga directeur ba ba max ko ba noppi génneel ko matraque maire ba di Bokar Hamadi si weddi ko ba mu set wecc nee na loolee du dëgg moom soxlawul jëlal ngànnaay jàngalekat boo xam ne matul nit xiibon xojongoon boo xam ne boo ko peese woon du mat ñeent fukki kilo universel pousse comptoir commercial